balaa ñuy tàmbali ñu jaaree grand Marcel Mendy. waaw bokk ci ah, gaa yi ah. waaw génn yàlla na ko yàlla yërëm. allahumma amiin. Euh, man dama bëggoon déjà commencer pour rappeler benn euh, une réalité sénégalaise xamante ne euh, c'est bon ñu fàttali parce que il est arrivé ici dans ce pays. Mm-hmm. dans l'histoire du Sénégal je veux dire waxuma ka moment bi ay député. loo xamante ni amul benn flagrant délit amul dara ñu fekk leen seen kër wala dara jàpp yu am na Sénégal mm-hmm. je veux que les Sénégalais se souviennent de ça il est arrivé dans ce pays une grève nañ si bataille tapp y a eu des gens qui ont été arrêtés et puis euh, des députés ñu jàpp sans mais sans lever leur immunité parlementaire 88 par exemple am na fi du lu bees benn deuxièmement pour kaw président Ousmane Sonko moom moom mooy député bi moom moo immunité parlementaire lii bi amu ko man aw ma ko kii aw ma c'est son droit la constitution moom moo ma ko jox bu fekkee ne moom dafa dafa dafa teggi considération yëpp yooyu def mu convoqué li ko droit dëkkam jox dañu war a lever immunité parlementaire moi je parle en partant de sa déclaration foofu laa taxaw j'ai encore l'image devant moi loolu ay commenté il prend sur lui le droit l'indépendance de ne pas répondre à la justice parce que am na par consacré par la constitution nañ ko ko nangul avant ngay commenter si quoi que ce soit mm. que la procédure soit respectée moom moo ko moom nañ ko ko jox là où il est possible de commenter mooy nga ne qui est Ousmane Sonko lan moo tax mu nekk lii lan moo tax lan moo tax lan moo tax pourquoi man sori était moi wala nga ne nii mais il peut il aurait pu dire non malgré tout ça Macky les gens peuvent le dire par rapport à sa stature par rapport à ce qu'il convoite par rapport à ses ambitions ne man Ousmane Sonko oui am lii sax c'est vrai mais puisque da ngeen bëgg mu leer man na bëgg def ma dara maa ngi il y a des gens qui peuvent aller dans ce sens mais l'un dans l'autre si fi pour man wax bi le débat jaratu parce que ñu dellu ginnaaw on ira jusqu'au bout présomption d'innocence présomption de culpabilité dans tous les cas la procédure a été enclenchée commencé fu mu war a commencé et je pense que dina jeex man pour le moment foofu laa mën a yem xaar dara suñu loxo pour euh, pour continuer li si waxoon du ñu si waxaat mm. man j'ai ma position sur ça je dis au-delà de tout ça parce que les politiciens l'ont accaparé ils ont repris l'histoire parfois tu dans le droit parfois tu dans la politique parfois tu dans la moralité ça va dans tous les sens mais nag xëy na importance su nit ki ak ni mu demee moo moo tol noonu on le comprend c'est des choses qui arrivent mm. donc man pour l'instant je m'en limite à ce niveau en attendant de voir l'évolution ba affaire bi tàmbalee ba fu mu yegg nii mooy je je moo tax may waxaat ne je j'ai encore l'image de sa déclaration à partir de foofu ba fii man fii laay mën a yem bu ñu jógee fii assemblée de mars leneen maa ngi avis j'ai dit que le Sénégal moo ñu intéressé pour rien au monde dara warul yàq arrêté Sénégal ni la vie bu ñu xeexee juboo c'est nous dans nous il faut que ces choses soient respectées maintenant li ci des nag on laisse la la vie euh, nous présenter les en fait, évolutions situation bi. alors bismillah xam naa jot jot nga expressif. non responsable ah, ah, ah. ko jéggal rek xam xam leen lu ko téye woon. nañ ko jéggal nañ jéggal. ma koy point mort. <laughs> malam président Moustapha Diakhaté moom ma naan baral de. <laughs> yow wax foo waxee ma wax. <laughs> dama la mere woon nag. mais dañu dañu jéggal. waaw mais mere woon naa la donc boo waxee rek. loolu bokk na ci li waaw waaw lenn loolu damay damay damay wax ci si ñëw ñëpp. la si si sama parole sama parole. laisse-moi terminer. dama dama la si ngeen ko voilà bu dee ma ni bu dee mën na wax rek mën na wax. bu ma ñëwee gis ko est-ce que taxul loolu taxul ma taat dama fa xasalu mais baa bi moom fit. mais mais jéggi waaw yéen a yéen a jàngal aussi. Uh-huh. Ah, julli day day day exactement te jéggalu na jéggalu na ñëpp dégg ko. Mm-hmm. alhamdulilah donc waaw di ko di di profiter aussi di jaale. Mm-hmm. sama xarit madame Sarr Thérèse. waaw mm-hmm. sunu xarit bu baax. waaw moom moom me rappelle la dernière fois may gis yaayam mu def ko mu ñëw doomam ma dem fa. fële à Mbaaw fekk maire bi ndeysaan ndeke ne la dernière fois ma ko doon gis. donc ñu koy ñaanal quoi moom ku baax la. ku am yitte. xam nga nekk ci liggéeykaay ñu bëri relation yi muy am particulière yi muy am ak kenn si ñun rek ku nekk rek vraiment dañ ko jël comme une seule yàlla na yàlla na tiis bi euh, teggeeku ci kawam di jaale aussi suñu benn xarit bu tudd Gaoussou hmm. mooy jaale ak maa ngi koy jaale Papis Ba di ko jaale Doudou Diouf à New York ak sama gars yooyu vraiment moom aussi mu nekkoon suñu xarit di jaare sama benn xarit boo xam ne papaam dafa génn àddina mu ngi tudd Tayrou Sarr hmm. waaw Tayrou génn àddina oh. donc ñu koy jaale aussi donc ñu ngi la koy jaale aussi yàlla na suuf sedd ci kawam. c'est difficile chaque fois ñu ñëw rek. vraiment et man man foofu foofu laay foofu laay rebondir sax pour wax que xam nga euh, problème entre ñaari nit yoo xam ne gisoo kayit fekke wo di dégg ci internet di dugg di génn di kii nga mën a chaque vendredi am prestation wu ñëw toog ci wax ci kër gi la maison c'est très difficile mm-hmm. il faut ñu d'accord ko il ñu d'accord parce que à la fin de la li ci gën a am solo mooy ñaari nit bu kenn jiiñ keneen ci dara avant ñuy convoqué député bi président de la république procureur ak ñaari nit yoo xam ne fekkee woo ngay seen nii di liir di kii bi tey tey nga liir mu nekk gauche suba mu nekk droite nga am prétention wu lu dul njort ak jàngat boo xam ne c'est un peu loolu rek nga ci mën a wax moo tax man tout le temps damay discuter ak nit yi et pour man damay damay invité nit yu bëri ñu bañ a fiyewu trop si tellement d' information y' tellement d' info ba nga xam ne finalement da ngay déglu kii mu wax la lale kële mu déglu wax la la te loolu dafay indi mbirum mbirum naaféq parce que loolu dafa am solo bi moo indi. waaw waaw non non non du waxuma rek presse bi. parce que presse bi dama ne lépp li nga xam ne dafay ñëw en terme d' info a tellement d' info que finalement. y' a matraquage. voilà matraquage donc finalement day wax naa la te dégg naa la te bon dañuy convoqué aussi maandu. dafa am am solo quoi à chaque fois que dossier am ñu commencé convoqué mbirum loi quatre vingt dix pour cent des sénégalais qui sont à la maison dégg ngeen di wax procureur euh, juge d'instruction c'est comme acimaci parce que il faut ñu comprendre que ni dëkk bi ñu ci gën a bëri ñu ci gën a bëri jànguñu yenn njàng yi donc am na yu ñu expliqué yoo xam ne ñoom du ñu comprendre dañuy comprendre que ni diw wax jiiñ na lii diw est-ce que diw moo ko def wala def ko donc je pense que pour vraiment ñu convoquer lucidité

de de de de avenir bu xaw a lëndëm. Mm. ñun ñëpp ñu ngi koy dund mu mel ni loolu ça dañ ko relégué au au dernier plan donc je pense que benn moment ñun en tant que sénégalais on mérite quand même d'être édifié quel que soit issue wu affaire bi parce que la question qu'on doit se poser mooy affaire bi est-ce que mën na arrêter est-ce que dossier bi mën nañ arrêter ci benn côté wala ci beneen je ne pense pas ban yëpp la ñu xale bu jigéen bi yëpp ba ne diw daf ma violé mu lëmbee réew mi nit yi am ci yàqule ñuy jàpp nit ni pour que affaire bi nax saay donc nous a le droit de savoir parce que à la fin de la journée moom laa ne bu ñu convoqué commencé convoqué yi dama koy bàyyi professionnel yi doo nekk vice président assemblée nationale nekk lii vraiment nekk bamba ngeen nekk si ay ñu xarañ ñu nekk fii def ay procédure rek ay affaire boo ci duggee rek da nga xam ne mooy légitime est toll nii si dossier war na mën a ñu lem ko dugal ko ci tiroir bu jeex est-ce que c'est pas trop tard on de savoir parce que ni mu demee la ça veut dire que ban xale bu am benn temps mooy yëpp nit yi bay bay bay bay def loo nit affaire ñu fal non dañu bëgg dañu bëgg benn moment que dans ce dossier là que ñu xam exactement bu dee ay nit ñoo ko formaté defar ko ba mu naaj dugal ko pour jéem ko jéem a nax saayal benn nit dañu bëgg a xam Hmm. parce que pour man ban intelligence la benn xale bu am vingt ans mën a am jàkkaarloo ko mel Ousmane Sonko ko ah? di ko tegal ay ay ay ay ay mots parce que à la fin de la journée c'est deux personnes ñooy taxaw di di waxante avoc ak avocat il faut benn moment dafa mel ni ci ci ci passé mag yi dañuy xaar jour bi ñuy woo nit ki à la pour mu wax cest dina ma jaaxal trop donc à la fin de la journée est-ce que li ñuy wax nii yëpp guddal jël la mais est-ce que affaire bi mën a tina arrêté parce que tey jii nii kan moo mën a jóg ne procédure bi PAM bi na plainte am est-ce que mën na nekk. bu ko retiré waaw waaw moom laa donc est-ce que nekk ñu di attardé wu si loo xam ne xam nañ ne aboutissement bi lii la parce que jël na ampleur boo xam ne ah ëpp jéggi na dayoo loo xam ne dañ ko war a régler mu gën a gaaw pour man situation bi ñu nekk nii on est dans tellement de problèmes que genre situation bi ñu ko. tirer en longueur muy jël espace bu mu warul jël par exemple aujourd'hui président Ousmane ko c'est pas n'importe qui et boo xoolee nii réew mi demee nii nga xam ni c'est pas n'importe qui maintenant kooku nan nga mën a def ba wañ loxoom ba jël benn xale bu am 20 ans mu dugal ko ci kaso bi il faut poser cette question là cette fille là elle est où elle est où voilà non ah, ah, benn moment kenn du la waxal il faut nga waxal sa bopp benn moment yow mi porté plainte di nga wax lii ak lii moo am léegi wax naa ko fi la dernière fois ban bâton magique wala ban parole wala ban ban ban euh, énergie la ñu ki mën a am ba fexe ba def loo wax loo def loo Ouma Ousmane euh, Ousmane Sonko loo xam ne mais na defu ko la question qu'on doit se poser je pense que mooy intermédiaire bi ñun ñëpp di ko pose dina mooy que qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il s'est passé quelque chose parce que je pense que cette question intermédiaire là elle est très importante qu'est-ce qui fait que Ousmane Sonko mu vulnérable je pense que cette question-là il faut qu'on la pose aussi bien si côté femme bi que si côté Ousmane Sonko je pense que le Sénégalais qui est là qui n'est pas partisan wala ku kuy si am am am njortam dafa bëgg a xam exactement qu'est-ce qui s'est passé parce que rétention d'information boobu bu ñu bu ñu il faut pas qu'on soit ñu ñu ñu ñu ñu hypocrite sa dire que mooy laa la wax benn bët bi di xool côté bi naan ah beneen bët bi moom muy gis ba pare moom mooy wax il faut qu'on soit clair dans ce dossier la man en tant que sénégalais j'ai envie de savoir Ousmane Sonko qu'est-ce qui s'est passé parce que toll na foo xam ne il faut qu'on sache il faut ñu xam moom laa lay parce que c'est pas c'est pas une accusation bu bu bu bu bu banale quoi bu légère et da wax naa la processus yi dafa gudd ba nga xam ne il faut que benn moment pourquoi Ousmane Sonko bëggul ñu ñu en tout cas souhaité peut-être ñu la immunité parlementaire am est-ce que c'est parce que procédure bi niñ ko niñ ko defee du yoon wala est-ce que il veut pas peut-être donner plus d'informations que ñu jox parce que bu ñu ko levee foofu la ñuy dem hmm. et dans cette bataille là y'a ñaari affaire soit nit ki di la xeex pour bëgg nga dem kaso wala nit ki di la xeex pour saltel sa der pour changer mi nga xam ne nit noonu lañ lay xoolee mu change loolu rek moo ci mën a nekk donc à la fin la journée il y a une fille de vingt un député troisième ci élection présidentielle yu war a taxaw jàmbarloo te fi ñu toll nii fi ñu dellu ginnaaw il faut que mbir mi daa fi il faut que ñu xam fan la laaxatu mu génn non dëgg la parce que ñu ngi wax diw porté na plainte diw na li ñu mooy ay image yu nekk existé woon ci internet ku ko mësoon a xam yónnee nga ko sa morom ñu xam bokk nit bu porter plainte nit pour viol benn moment yow mi ñu tooñ tu benn posture de d'assumer parce que dañ la tooñ mais boo laxu ba kenn gisu la ñu ne tekk affaire bi ñeneen gàddu combat bi bu yàggee dafa mel ni dafa am looy nëb donc je pense la fin de la journée li ñu def ni yëpp dëggal guddal jël la mais on est allé à un niveau boo xam ne il faut que ñu xam nan la demee te ñun loolu moo ñu intéressé maintenant les procédures ak affaire bu ñu ci duggee yi dañuy gën a jaxasoo. ok procédure yi bu ñu ci dugal dañuy jaxasoo déjà ci wàllu procédure boobu sànq ba ma kase balaa may dem ci.